ne ma waaw ma ne ko mel na ni de féete mën na noo xamante ni mel na ni bàyyi ci man muy waat ma ne ko waaye Macky Sall mu ne ma waaw ma ne ko jaxasoo na ak moom jaxasoo boo xam ne comme ñu bokk ndey ak baay daal di ne tekk ba ci yàgg mu ne moom xanaa est-ce que xam na ni moom defaru Sénégal ci loxoom lay jaare hmm? lii kay maa jël engagement wax ko tere ba gis ko ma weddi kadeer a nga ne laaj ko attention de gisal gars nii rek ñuy dem nii. nan la ñuy jaaree dugg ci interview Cheikh Amar bi dégg ngeen ko kan moo la weddi kenn du la weddi mais réew mi moo la weddi réew mi doxinu réew mi moo la weddi Cheikh yi respecté nañ la Amar ku ñu nawloo nga royukaay nga ci dëkk bi liggéeykat nga ñëpp xam nañ ko jeunesse bi yëpp dañu la def référence. mais yenn yi daaw xamuñ la ci woon yii daawuñ la ci dégg te bëgguñ di la ci dégg parce que affaire politique c'est gars yi xamee wuñ la ko am na wax yoo xam ne nag boo ko waxee gars yi dinañ comprendre xam na yow mi mooy loolu noonu mais lii du waxu loo war a wax yow du sa wax du luñ la war a wax loo nga wax ko mag Macky buñ ko préparé buñ ko installé yàlla moo ko fi teg ñëpp nangu nañ ne dogalu suñ boroom la mu jox ñu ko suñ borom dogal ñu Macky Sall nekk président de la république du Sénégal loolu ñëpp nangu nañ ko mais defarug Sénégal jaaragul ci loxo Macky Sall parce que lan moo tax jaaru ci mooy Macky li ko fi dese li jàll moo ëpp li ko fi desee def na sept ans après mi ngi deuxième mandat am deuxième am mooy dernier mandat am te instant bi toogagul na un an trois ans moo ci des te ba léegi Sénégal defaroogul Sénégal jamono bi fi Abdoulaye waat di nekk. la tane won ke jamono yi kon buñu taxawé né défaruk mak défaruk Sénégal ci Macky Sall lay kon kañ la Sénégal di defaru wala suba lay defaru wala ginaaw suba lay defaru ah, amna wax yo xamantene ni même bu lu ko kilifa waxé sax ah, nga mën ko sang sutura sutural ko xeyna mën na am Serigne saliw daf la wax né la mom moko fi remplacer wala après mom après Abdoulaye Wade Macky Sall loolu Serigne saliw mën na la ko wax sax mais defarug Sénégal su dee ci loxo Macky Sall da des mi ngi yéex si Amar defar defarug Sénégal sénégalais yi sonn nañ sénégalais yi xiif nañ sénégalais yi mar nañ sénégalais yi amuñu liberté nan la ñuy fexe ba jóge ci wàllu mbas mi ak vaccin yi waaj a ñëw nan lañ ciy génne naka la ci sénégalais yi génne ci jafe-jafe yi ñu nekk kañ la Sénégal defar.